proposition boo xamante ne bu concrète la loolu c'est des yoo xamante Sénégal yi ñu koy posé mais beneen bi nga xamante ne moo ci xaw a gën a doy waar ne mooy tey bii mooy dixième remaniement au président Macky Sall ci huit ans hmm. huit ans d'exercice nga def ci dix remaniements hmm. utiliser presque cent ministres euh, bii daal moom moo ci gën a yàgg parce que moom remaniement am par huit mois la doon doon bii moom moo ci tenir ba dix huit mois peut être Covid bi da ci joué aussi lu bëri parce que période Covid bi aussi nit ñi peut être du ñu woon xalaat euh, naan dañuy changer ay gouvernement mais bu ñu demee nag bay changer autant de gouvernement ci euh, huit mois ci huit ans nga def ci dix remaniement euh, dañu poser question ndëgam kii xam na fu muy jëm wala est ce que xam na ñu muy àndal on peut changer d' accord objectif bi bañ a changer mais boo xoolee aussi lii dafay gën a poser problème c'est-à-dire man je ngay jël réew am na xalaat ak xarañte boo xamante ni da ko laaj boo ko amee am nga nit ñoo xamante da ngay yaakaar ni ñii wax nañ ko mën a gérer donc boo demee ba ci huit ans nga def ci dix remaniement day poser problème est-ce que aussi remaniement yi parce que boobu tey dañuy changer x day jógee fii dem fee euh, règle toog aussi voilà chaise musicale du benn changement profond wala changement profond yu Sénégalais di xaar parce que am na aussi ay ministère de souveraineté yaakaar naan